Seydina Muhammad Seydina Muhammad na ñëpp def nii nii nu màggal Seydina Muhammad bara أهل بدي من خير الجماع وصنه القدوس عن خير الكما كون نبي المنتهى محمد خير الورى المختار إن سمدي كون نبي منتقى محمد غير الوراء المختار إن سمدي كون نبي منتقى محمد غير الوراء المختار إن سمدي يو سيدنا محمد دقلوا ما وخلا ببدا مصطفى ملا مل diggante Amin Iyane yàlla na xippi àjjana ak ca mu Cerno Muntaga Ahmad Amadou Muntaga Muntaga Cheikh mu waxoon nit tey la mu ñaanoon yàlla defal na ko mooy sa rak taxawu na ko yëkkati nga sa jëmm taal ñëw kon nag amatu kenn ginnaaw bu la Moustapha yaan ñi xam ne tey mooy taawam rakam yi ne jiitu ci Zara jël cër yëpp te suba ba tey démb ba léegi ñoom defuñu lu xam ne diisoowuñu kon nga dalalee loolu sa xel que ne njabootam ñu ngi dox ci kilifteef benn kàddu du fi jubbati lu mooy ci sa ndigal ndax Moustapha dalal na la jàmm ndax xam nañu nag li nga bëgg lépp lu ànd ak waxtaan bokkul ci lépp lu ànd ak rëj rëj bokkuloo ci loolu nag la ñu fas yéene doxal fii ndax loolu la iyaan dénkaane woon loolu la Moustapha wax ne nañ ko ko defal moo ko rakkam jii di Zara ak ay rakkam kon sa kàddoom googu taal loolu ñu wax rek noonu la ñuy jëf nañu xam ne iyaan ci am waa kër Cheikh Oumarul Fouti yi la parce que Iyane Thiam surtout Serigne Massamba Thiam mhm. ki nga xam ne moo jàngale Mame Maram Mbacké mhm. ki nga xam ne moo jur Mame Balla alhamdulilah rabbil alamin mënuñu lim ci luñu situation bu ñu nekk diggante Thierno Iyane Thiam ak Cheikh Umarul Fouti ak Thierno Madani mi nañu xam ne Iyane waa Cheikh Umarul Fouti la ci yoon yu bëri waaye nag nañu jublu ci li nga xam ne du ku nekk moo ko xam mooy lan Mahmoud Ibrahima Njob Ibrahima Mahmoud Ibrahima moo jur Aliou Mahmoud moo jur Samba Aliou ak Kumba Aliou Samba Aliou moo jur imam Masamba Thiam kooku mooy maami Tidiane Thiam 1650 la gàddaay Halwaar jëm Thiamène Kajoor Kumba Aliou kooku moo jur Aram Lo Kumba Thiam moo jur Mbote Fay kooku moo jur alhamdulilah rabbil alamin Fawa Dajara Wele di yaayu euh, euh, Cheikh El Hadji Njobbo moo jur Njang Njobbo Maak Njobbo Sawa Njang Boobu Njang moo jur Farmata Boobu mooy yaayu Ceerno Saydu Antumaani Mutar Saba Mutar Cerno Seydi Anta Maane mooy baayu Cheikh Umarul Fuuti yu gi di xawlaay riiw kooku mooy baayu Muntaga Cheikh Umarul Fuuti yu moo jur Ahmad Muntaga Cheikh Umarul Fuuti moo jur Cerno Muntaga Ahmad Muntaga di baayu Cerno Madani Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Umarul Fuuti yu kon nag nañu xam ne Iyaan Caam mbokk waa Cheikh Mourou Fouti yi la mbokk waa Halwaar la mbokk waa Thierno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Mourou Fouti yi man Mamadou Sega Niang maa ko wax nee na lii nag moom xaaroon na ko te xamoon farba woo ko bi li mu wax léegi mu jiite Cheikh Oumar dafa bokk ak Cheikh Mar bokk na ak Serigne Bamba iyaan wonaa ɓee tan iyaan du ñii rek la bokkal de iyaan ko aduna o fu mu iyaan adduna bi yëpp la bokkal xam ne soo yar su génnee addina ko aduna o fof ko aduna o fof yantira aduna kon nag addina bi yëpp ñoo koy jooy ndax ñoom ñëpp ñoo perte nee na duñu wax ne dañ ko perte ndax ni ñi perte wuñ ko pertaani ko ndax jëfam a ngi fi ɓiɓɓe makko nan ɗo ay njabotam a ngi fii alhamdulillahi kanko e hakkude makko e galle Cheikh Oumar diggante moom iyaan ak kër Cheikh Oumar wiyetake duñu wax bokk nañu duñu ñoom benn lañu won anduɓe iyan am nañu xam iyan to ganda galle cheikh oumar fekk xamuñu kër cheikh oumar won anduɓe galle cheikh oumar am nañu xam kër cheikh oumar ganda iyan fekk xamuñu iyan kono ko ɓuri heewde waaye lu gën a bëri kala ganduɗo galle cheikh oumar andi galle ceerno muntaga képp ku xam kër cheikh oumar xam kër ceerno muntaga andi hen darde iyan xam na taxawaay iyan ci kër wonde ko ceerno makko e ceerno muntaga nekkandoo ak ceerno muntaga jilli ceerno muntaga e makko mbëggeelu Thierno Mountakha ci Iyane. gilli gilli ma ko e Thierno Mountakha. moom Iyane mbëggeelam ci Thierno Mountakha. Ah, ala Thierno Mountakha woni ɗo. bi fi Thierno Mountakha nekkee. ala ko Thierno amul dara loo xam ne Thierno Mountaga dina ko def fekk iyaan toogul alaan taw iyaan amul fen fu Thierno Mountaga yi taxaw fekk du iyaan mu foofu taxaw alhamdulilah poofaali ma ko foofu Thierno mu doon noyyi Thierno Mountaga mun goɗɗum noon dafa woohen leneen nag mun na ci teg waaga leneen ak leneen mbimini iyaan moo tax mu ne leen iyaan nitu addina la aduna iyaan ko aduna foof la demal سيدنا محمد براه البديع من خير الجماع وسنه القدوس عن خير كما كون نبي المنتهى محمد خير الورى المختار إن سمدي كون النبي المنتهى محمد خير الورى المختار إن سمدي كون نبي منتهى محمد غير الورال مختار إلا سمدي يو سيدنا محمد ديغلول ما واخلا بيد مصطفى ملا مل بام تودو مي ديف gën ñëpp yàllaaw